Mm-hmm. mais mm-hmm. parce que li nga may expliqué nii amoon nga possibilité pour yow rester woon Sénégal yëggale yëggale mission boobu nga xam ne yow. Mm-hmm. yàlla def na tokkaar na la. lan moo lan moo changé idée bi tax. nga bàyyi ko loolu lépp waaw ci biir nag loolu lépp. maa ngi ko daan dekk samay loxo buur bi naan ko de may ma ba ma dem bitim réew di di di di di yaatal liggéeyu sëriñ bi barke rawati na ku tudd sëñ Mbaye Guèye Sylla mu marqué woon ma trop. bu daan ànd ak sëriñ Maam Mor Mbacke. ci jamono jooju nga xam ne yaa ngi def yooyu. waaw mu koy jàll mu koy jàllale RTS. heure bi mu ko doon heure bi mu doon def direct sax da daan ñëw ak heure boo xam ne damay wàcc rek. ci hmm. tool yi daw ak rajo bi. pour Ibu Mbaye Guèye Sylla reportage yi ma gënoon neex ci rajo boobu reportage ci la bokk. may ñaan yàlla. Hmm. naan ko may ma ba ma dem bay dem bi ci réew di def lu mel nii. Hmm, ok waaw. kon lu lu yàggoon a bëgg la. lu ma yàgg bëgg la. génn mu jaral ma lu bari. Mhm. lu ma yàgg a bëgg la lu ma bëgg la mu mhm. jaral ma lu bari. Mhm. léegi voilà nga ñëw Argentine. mission boobu nga xam ne. jàggoon nga ko bëgg di ko ñaan yàlla. benn yàlla nangul na la ko ndax génn na la Sénégal. indi la ci fa nga ne woon ka léegi am nga ko voilà. mu ni la fi nga xam ne Argentine la. yàlla yàlla suñu borom defal. xéwal gu yàpp. amin ci barke borom. bi nga ñëwee Argentine. lu ko jiitu Brésil lañu jaar. waw Brésil. Mm, bi ñu jaaré camp ba ci mama bo xamni yakarna yaakaar naa bu ma juumulee. kon na xana ka camp ba kon ya ko def ay ay émission waaw dañ fa gamo waw def def nga fi émission ci bir camp parce que nit ki lu mu bëgg. ok ci mama bo xamni la kenn ku nekk da fay neubutu parce que eggaguma ngay wax ni. Mhm. bo watul sama delu dellu Sénégal. ok mais bi ñu ñëwee dama gis ni li ke dafa wara jall ñoo xam ni dañoo jóg di tukki eggaguñu ci seeni yoon ñëw Brésil taxawal fa seeni kuréel ba journaliste yi di jóge ci réew yi di ñëw mhm. di leen dekk seeni micro di leen di leen di di leen ay télévision dafa ñëw di ko couvrir mhm. da ngay def biir Kaaba. waaw ci biir Kaaba waaw ma ne tey gàmmu bii dama koy jël ma dem fay ku ñuy wax Abdoulaye Lo di mhm. ko yoroon télécentre woote ci Bawal Média boobu nga xam ne ci laa nekkoon ne ko dama bëgg a jàllale gàmmu bu fii te boobu yaa ngi ci yoon bi boobu maa ngi ci kaa ma fay ne ñu ngi fii ndeysaan muy nag lu am solo boo ñëwee ci biir yaa ngi gis photo Sëriñ Tuuba ci bunt bi nga dugg gi Sénégal yi seen organisation yu am solo guddi gi kuréel yi introsé gars yi ci noonu lañu ñu tàmbalee après ngeen génn ci kaa bi waaw bi ñu ñëw casier de suul bi ma ñëwee amaguma liggéey sax fexe naa ba ba ba présenté li ma doon def mooy ñi nga xam ne ay sénégalais lañ fa am fa solo fexe mhm. naa ba jéem leen bili ndeysaan émission boobu génnul sax ci sama téléphone laa ko ni dama soxla def beneen titre bi parce que gis nañu moment bi Sénégal yi ni ñu fi duggee mu mhm. bëgg la daal jël la laaj la ci lu demee noonu nga def message ok mu accordel la ko mu na ko naa téléphone bi ma ko jëloon dafa mujjoon bari ba mënu ma ko woon traité ba à dama ko mujj perte mhm. ci foofu la ñu Mm-hmm. daal di présente wu ci kul koo xam ni itam dañ la fa xam mooy ñi nga xam ne ñoo yore wàllu day rëbb wala nga nekk fa dara ne leen kat lii métier mu doon def la. Mm-hmm. jàppale ne daal kon ñi ngi fii te bëgg nañ ko ànd ak yéen. Mm-hmm. ci li ma fa njëkk a dajeel mooy sëriñ Maam Mor dooñ fa ñëw bari na ñoo xam ne sax ba nii. sëriñ Maam Mor Mbacke jàpp nañ ni waaw maanaam man dama àndoon ak sëriñ Maam Mor ñëw. Argentine ci lool ci ci Brésil waaw ci lool ah, ci loolu laa fa dese parce que dama fa def loo maanaam ci moment booba dafa dafa dama fa def loo xam musul am ci Brésil maanaam ñëw sëriñ maam moo ñu couvrir ko médiatiser ko médiatiser boo xam ok àddina bi yëpp dañ ko doon seetaan ci bawal média boobu te loolu idée boobu noonu mhm. ko dip bi ngay Sénégal waaw nga ko waaw Brésil waaw ok mi sax avant seigne Mamadou ñëw dem nañu ba am liggéey. doguma la mag war ku ñu am maam Thierno xabon ñu bokku mu den na sax ba muju bokku ci liggéey bi mom moo man moom moo manis ba xam nga ni da ngay ñew ma ne ko ñëw man ma ngi door commencer fi fii liggéey tubaab yi fi bo tardé mu ne ma da ngay ñew jox ma ki nga xam moy mooy chef impresa bi. Hmm. numéro ma la jënd numéro ko jox ko. Hmm. mu woo ko nek koku nonu da am solo ci li def may ñuko ko mu ñëw waqol la lan fa def. bo foo nekkon bo ma ngi ci ben dekk bu akasia juróom-ñaari kilomètre bu ma juumul. porte legre wa no, wa ak non maa ngi juuma de akasia la jubloo wax ak Caxias ñaari kilomètre. maanaam Caxias la sëñ ma ñewon wa waaw. waaw Thierno jot maire bi wax ak moom booba daanaka mom olak moy sa xamé ma bax ne ko koku da wara ñew ki la ma accordé lolu bolé ma ak domam mhm. biñu wacce mu yobuma ci auto ma fanani ba sedd événement bi ma couvrir ko. li ma bëgg a laaj. Mhm. mooy maman boobu noonu ni ngay def lool. Mhm. lan nga doon filmer sa téléphone. téléphone. ok waaw mais da nga jëkkoog ñoo xam ne. Mhm. maanaam ñoom da ngay booy def émission am ñoom dañ koy am en direct ci ñoom. waaw boobu nag direct laa koy jàllale Baol Média ñoom direct lañ ko doon jël. ci rajo. waaw ci rajo rajo boo xam ci internet bi la quoi parce que amoon na doole nag parce que diaspora bi boobu daanaka lii demeegul ni réseaux sociaux yi ni mu yaatoo ni kenn ku ne ubbi canal. demegul Baol media moy rajo bi nga xamni ni na doole ci internet bi ci hmm wa ci bobu lañ ko doon jallale ok. hmm yalla def lolu nonu andu hmm nga jige fa ñew Argentine wala batay yaangi yaa des Brésil. wa jot na fa nak di def tourner pour kii mi ba euh, sept mois la fa liggéey ci biir lolu itam fexé nañu ba métier mo mom dox fa bu baax a baax ndax yaakaar naa boo xoolee surna xasaay bi nga xam ni ñu njëkk a def avant première bi ci anam bi ñu ko defee. manam mhm. da ngay xamni sax ak bëgg la dañu fexé ba ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk kenn ku ne ñu jéem dégënté ak yow ba nga def ab vidéo ñu jël image ci collé bolé ba mu nekk annonce. Mhm. nga xamni tay boko séral da nga xamni ki mom li mu def kat manam lu professionnel la quoi daanaka do ko xamé ñi né Sénégal lañ koy défé té booba ci moyen bu ndaw lañ koy défé waaw muy téléphone ci débrouiller. wa ci débrouiller ci anam kii sa ab téléphone sa gaay ma néwalon ñek sax dama leen do nab jox mom ma wàcc ci bi ma def ko liggéey passé ko sama téléphone fexé ba créer. affaire bi qualité. wa mo am qualité. am niveau uh-huh. nak di xam lu ñu mel. ba bi ñu à la Alegre sur na xataay di fi ñëk am sama téléphone la yor yor sama micro bi ñuy def marché bi. ok ñu interroger gars yi. la mbir yi di commencer ñu xam ñu koy xam ci bir Brésil. mama bi ngay def do fi def na nag fekk nañu tuwa Brésil TV ubi waye nak boobu itam doxine bi. doon tubaa Brésil TV bi nga xam ne moo nekk. tubaa ah, Touba Brésil TV. Ah, waaw boobu fekk ngeen ko. waaw boobu nag ñoom ci photo rek lañ daan diviser. ah ok toppagul woon daal mu dox en. tàmbaluñ def ay émission voilà très bien. wala di waxtaan di introsé wala yu mel noonu ci photo. di yooyu. lu mel ni kon idée boobu a indi Brésil ma wax la yàlla rek ci li ma xam maa ko njëkk dox boo xam ne day dox nit te lay doxee. di ñëw di laaj nit ki génne image am. Mhm. wala màggal am ngay def reportage. Mhm. wax dëgg yàlla ci ci maa fi njëkk daal. ok waaw. kon ñu ñu ñu pare Brésil. ñëw Argentine. dugg Argentine waaw.